foog ñu koy fàttali contexte bi ñu nekk la ku ne libre nga bañ a takk masque waaye boo ko takkul tamit libre nga génn salle bi ndax mënuñu daje fii nekk mbooloo ñu ne nañu respecté mesures barrières yi may gis ñu jàkkaarloog man takkuñu ay masque wala nga takk masque wàccee ko ba sa bakkan bi di feeñ loolu moom ñàkk a takk masque ñoo yem te ku ne xam na ne feebar baa ngi fii mu ngi progressé bu demee ba région de Diourbel am lu jege cent cas ak près de 50 mois fii ci région bi kon ñu xam ne loolu du jaaxal ñu leen di ñaan vraiment ngeen observer mesures barrières yi rawatina bu ngeen nekkee dans un endroit fermé bu mel ni kii salle bi ndax ku ci ne si ñun am nga ay waajur yoo bàyyi kër ga. xam nga ñu nekk ak yow ñoo xam ne am nañ ay comorbidité yoo xam ne feebar bi xaju ci ñoom kon vraiment ñu xalaat ñooñu ñu takk suñu masque yi bu baax ba ñibbi ci suñu kër yi jërë ngeen